ñooñu même bu dee danoo wàlliyaan te nu bokk Sénégal bokku ndakaaru gii mhm, mhm. mu amul sañ-sañ jug dem doxi soxlaam ñu am seen sañ-sañ jug dem doxi seeni soxla ni ñu ko bëggee mhm. quand tu parles à des personnes responsables yoo xam ne danoo am vécu te vécu bi nga xam ne moom la ñuy dund mooy li leen yóbbee tey misère gi war mën a tax ñuy nekk soit marchand ambulant ou tablier et di fonctionner dans l'illégalité seen loxo dañu ci ndax bu ngeen amoon xam-xam ca yooyo jamono situation bii du yegg si ba fii seen tële ak seen ñàkku xam-xam seen manque de génie hmm. moo indi le peuple sénégalais ñu egg si niveau bii ñu nekk pourquoi bëgg toog aujourd'hui ne yow da nga bëgg nekk l'avocat du diable hmm. yow da nga bëgg xëy rek nga ne tu veux faire un changement depuis quand Alioune Ndoye est maire de Dakar Plateau depuis qu'il est maire de Dakar Plateau boobu son régime wàccagul woon moom fi poste maire cumulé yeneen i poste te pendant ce temps amoon na doolay wàccee euh, génne marchand ambulant pourquoi def ko ci période boobu. vraiment vraiment il était dans le système bonne question. pourquoi Alioune Ndoye n'a pas déguerpi les marchands ci période boobu. bonne question. Alioune Ndoye était où. Mhm. la nekkoon. Mhm. ah léegi la déguerpissement neex maanaam ci jamono jii la safe kon xanaa kon moom ba muy bëgg a yëkkati marchand ambulant ci boobu jamono xanaa kon ay kilifaam dañ koo newoon tegal ci suuf. Mhm. wala la qu'est-ce qui se passe wala muy wut électorat dans la tête de Alioune muy wut électorat te yow te moom il est encore jeune quand tu as quand maire et yaa ngi def ay acquis ci fi nga nekk mais da nga koy consolider ah parce que il n'est pas dit parce que maire nga APR nga bokk que élection yi ñëw yow mën ngaa ñàkk bañ a falu ba nga ne xaaral ma jambaaje carte bi yow boo liggéey li nga war a liggéey askan wi bu ñu la waree fal duñ ci xool Pastef duñ ci xool APR duñ ci xool dañuy xool maire bi leen amal njëriñ mhm. bi yokk ci localité bi bi nga xam ne moo leen comprendre bii discuter ak ñoom bii di concertation mais bi nga xamante ne également bu jëlee décision def dara mhm. day fekk am na yeneen solution yu mu leen tegal de rechange mhm. vraiment vraiment yow wutaloo ndaw ñi liggéey sa politique emploi de la jeunesse nga lajj ci wutaloo ndaw ñi liggéey xool période immigration bi fekk la fi. Mhm. xale yi di dugg ci gaal gi di dem Nicaragua xanaa du sa régime la woon. yow ñu ñëpp wutaloo leen pexe ministre bi yore pêche. yëkkati woo ñaar fukki dërëm ci sa poos woon pêche. jox leen xaalis ne leen ah kaay leen ngeen liggéey wala ñëw leen ngeen investir ci nangam mu am ay agence yoo xam ne ndaw ñi lañ ko jagleel ngeen jël xaalis ba pasar pasaree ñii ngeen jox ay fonds politique ñii ngeen jox ña leen saf. Mm. ñooñu di daw di wut lu nu am donte fi ñu koy defee du yoon. nga bëgg xëy xëy rek yow Alioune rek gaa yaa ngay woote Superman rek ak Batman yow nga ne man tamit xaaral ma sol sama kap def yëfi Iron Man. non ça ne marche sur ça euh, alors Alioune Top euh, mami nee na euh, derrière tout ça lim ci gis mooy sabotage. yaa ngi da bu partager son avis. chronologique bu moom moo fi nekkoon bon ñu rappeler kan mooy Alioune Ndoye. Mhm. Alioune Ndoye moo fi nekkoon. ministre bi nga xamante ni moom moo yoroon wàllu napp gi. Mhm. pêche gouvernement bii bi mu ñëwee. Mhm. bokk na si li mu njëkk a dakkal mooy contrat yu bon yu mu signé woon. waaw ci napp gi. Mhm. ne secteur bii li fi nekk ci ay doomu aadama di daan doole. Mhm. bëri nañu bëri gu nga xamante ni ni nga signé li nga xamante ni moom lañu moom war ci tedd. dara jaar ci yoon loolu dañ koy dakkal. mu am ñaari impact. ci ndaw yi. waaw ak askan wi. mooy ne ndaw yi commencé waat nañu commencé di am jën. bu ñuy napp indi. Mhm. mais askan wi it commencé nañu di gis jën bu ñu mën a jënd. di lekk jën mën a lekk. Mhm. kii mooy Alioune Ndoye. Mhm. laataa ñoo dugg ci Alioune Ndoye maire de Dakar Plateau. loolu de baaxul. alors photo cliché boobu de baaxul. waaw mais xam nga kii ku la def lii. wax la ne la yow bi nga nekkoon ci ministère bi commencé guñ de. bu ñu fàttee ne am na ay rapport yu fi génn. yu Cour des comptes. mais gestion wu. maire yi Dakar Plateau dañ ko épinglé te Alioune Ndoye moo fa nekk mhm. alors kii nag xam nga bu fekkee ni danga dugg ci oto mu nekk ci pente bay waajal di daanu mhm. di këlëb-këlëb foo jot da ngay garaanu mhm. moom amul xooloo fii daf may dagg wala daggul Alioune Ndoye ci zone de turbulence boobu la nekk instant bi day langaamu non day wut fu mu jafandu parce que affaire baa ngi këlbatiku te xam na ne daanu rek donc mu jàpp fu ñaw wala mu jàpp fu koy dagg wala whatever na am fu mu jafandiku rek léegi li ko desee pour mu jafandiku mooy de force naa jéem a yëkkati ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi nekk fii ne ma jaar ne benn circulaire la buy daw mais man bala maa ñëw fii tey yàlla daf ma dimbali daje nag Moustapha euh, Sare hmm. Moustapha Sare waaw bu porte parole du gouvernement porte parole du gouvernement yàlla ñu laaj ko ci question bi mu tontu ne ñu ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci mbir moomu xool nu ñuy def ba trouver une solution pour que ndaw yi mën a am liggéey yu leen di gënal sax di toog ci marché bi di koj ay clients yu nga xamante ni di nga ci am 1000 francs mille par jour jaarale ko ci ay formation yu dëgër wutal leen xëy yu décent te loolu ki koy pilote mooy Ousmane Sonko te ñu ngi ci liggéey ak les collectivités locales mhm. kon Alioune la bokk waaw bu fekkee ni yow état centrale mi nga xamante nii moom mooy tax ngay liggéey wala moom ngay liggéeyal mu ngi négocier ak yow bu trouver une solution mais pas de force que ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi nekk fii parce que am nañu envie quand même defar suñu image capitale ba mu niro capital yi mhm. gën mhm. mais li ñu jiital ci waxtaan wi mooy fexe ba ndawu Sénégal am d'abord ci lu ñu jàpp ba mën a am xëy mën a di xëy di gont di am lu ñu yóbbu seen njaboot mhm. alors ki taaba taaba xamoon nu mu def xamoon maam mi rappelé na ko tout à mais durant régime mu. ñi fi nekkoon yëpp ne Macky Sall. Mhm. moom mu nekkoon maire ba pare nekk ministre. mais mosul xalaat piir Sandaga boo fa demoon waaye maare day taali. Mhm. ba tax na projet bi nga xamante ni moom moo nekkoon defaraat sax marché Sandaga moom. bu fekkoon ni dafa amoon envie defar quand même Dubaï même. architecture bi nga xamante ni moom moo fa nekkoon R plus 1 R plus 2. Mhm. mais mënoon na fi jamono toll tey. mais mu gën ko yëkkati ba nga xamante ni marché bi centre commercial moderne bu moderne. Mhm. Mhm. mais gis nga bu la yàlla dimbale woon ma nga togg Alioune Ndoye laaj ko mais pourquoi ngeen garder architecture boobu noonu mais après sa xol day. jeex lu muy wax <laughs> mu ne tu les vieux qui sont nostalgiques. les vieux qui sont nostalgiques de Dakar Plateau. bu njëkk ba. ñoom na nañ ko gardeel ñooñu <laughs> mais ñooñu mënuñu dund éternellement. <laughs> jeex nañ sax. ñooñu dañuy dañ dañ fiy jógee. mais non non mais yeneen <laughs> génération ñoom ñooñu. mais il faut être on parle de développement quand même. mais est-ce que le maire là aujourd'hui dafa am volonté wu liggéey ngir Dakar Plateau wala dafa ñëw pour saboter dëgg-dëgg liggéey bi nga xamante ni moom. le gouvernement bi nekk di entamer pour sabotage sabotage moom yàgg na ci eh, jàpp naa ne véritablement seetaan ma ko nag tey bi hmm. mu génnee di wax hmm, def na conférence mais li ma ci fort ci li mu wax jàpp naa ne loolu manque de respect non seulement ñi ngay jàkkaar la hmm. mais manque de respect également suñu force de l'ordre yi parce que boo ne am nañu jaaroon seen diggante te ñooñu seen liggéey mooy force de défense de sécurité mais war a défendre assurer sécurité sénégalais yëpp nga ne ñoom ñoo jaar seen diggante mooy que ni donc li nga fas yéene woon nekkul woon dëgër pire. Hmm. waxooloon ñëw leen jógee fii. waaw mais da fi jógee par force wala ma jël seen bakkan. Hmm. et kuy administrer quand même. nekkul y a euh, que ni il doit euh, revoir sa copie war def quoi. il hmm. doit revoir sa copie parce que quand même soo nekkee maire nekkat maire. c'est parce que am na lu nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci yow des solutions yu nga xamante ni danga koy def pour que ñu nekk foofu yëpp mën a kenn ku nekk gis. si interview yu ma gis tout à l'heure euh, sur Sunugal 24 introsé nañ kenn mu ne ñoom dañu jàpp ne ñun ñi fiy jaay àll ba la ñu jógee ñun ay boy town la ñu amul ci lu ñu jàpp quand même quand même amul ci lu ñu jàpp ñu mm-hmm. génn di jaay mm-hmm. et effectivement boo gisee ñu bëri ñuy jaay foofu mais seen buntu kër la ñuy wàcc di jaay ay boy Dakar la ñu Dakar Plateau la ñu dëkk mm-hmm. mais moom bu fekkoon ne mu ngi doon liggéey liggéey bi war donc ay doomu goxam mais c'est-à-dire saaga weesuwul yow nga xam ne si sa subconscience mooy commune bi ngay gérer seen doom yi amuñu xëy amuñu lan lu ñu def ba nga leen di wax ne lañ nañ ñoo inscrire ci ay volontariat ah, pour xeex ak ki marchand ambulant mm-hmm. mais bu bu doon ñoom ñëpp fexe woon nga ba am nañ ci lu ñuy jàpp mais ñooñu amuñu temps di ñëw de inscrire pour eh. nekk ay volontaire donc mm-hmm. dafa saaga ndaw yi nekk sax Dakar Plateau kaa leen kaa leen volontaire volontaire pour ah. xeex mooy que ni amoo leen benn occupation comme toog naan ataaya rek ngeen fi nekkee mm-hmm.